salon bi ni ma ko gisee moy que ne vraiment salon boo kilé la salon bu spécial la parce que yag nañ dem salon mais salon bu melni nii ci dem lieu bi baxna na mettre nañu dans des bonnes conditions vraiment dañ ñu ngi ci kontaan diko ci gërëm bu baax a baax parce que itam jox nañu bus de transport bo xamante ko tam c'est climatisé depuis ñuy dem a ko dellu si am ñu benn coono te aussi tamit gis na fi ay partenaires yo xamante ko yu soxla won la structure yo xamanteni ko musuñu leen gis dañ leen doon dégg rek gis nañ leen fi te ku ci nekk dem nañ ci ñoom waxtaan ak ñoom kenn ku nekk wax ñu li nga xam ni moo la fi tax a toog pour jàppare artisan yi ñun tam ñun suñu chambre de métier gis nañ ci suñu bopp parce que structure yi ma toog yëpp waxtaan ak ñoom ku si nekk wane nga ni yow artisan yi ñoo la ñor te artisan yi la tax a jóg ñoo la fi tax a toog Le salon économique, social et solidaire est un partage. Alors s'il n'y a pas d'individu, s'il n'y a pas d'artisans sur place, si les peuples ne se croisent pas, si on n'y participe pas, il n'y aura pas de partage. Et il faut partager et ensemble être solidaires, unis, pour œuvrer pour de grandes choses pour l'Afrique. Mais d'abord, il y a des rencontres. On rencontre de nouvelles personnes. On se déplace, on vient sur une terre euh, qu'on ne connaît pas. Et au-delà de, cela, on échange avec tous les exposants ici présents. On échange sur plusieurs aspects, des, aspects euh, dans le travail, euh, dans les difficultés, euh, dans les bonnes choses. Et puis, c'est tout, ça hein, qui, fait le, salon. Quant à moi, j'ai eu de, très bons contacts. Hein. il se peut encore que je revienne ici au Sénégal parce que j'ai eu de bonnes rencontres et je serai ici très bientôt peut-être pour l'ouverture d'une succursale. Vraiment, salon, si ñun les femmes de développement ndax lu toll ni salon ñu sélectionné la jël si kooku da nga war a sant yàlla. vraiment suñu nekkin fii ñun tàmm nañu lii ndax salon du pour jaay pour partenariat la ak yokk sa expérience loo fi jaay rek sa wërsëg la waaye salon pour indi koom-koom bi nga xamee ne entre euh, Maurit euh, entre Maroc Côte d'Ivoire et Sénégal kon jaxasoo boobu ñu jaxasoo ñun jëlee nañ fi lu bari ndax demb bi ñu nekkee salle de conférence ñun ak marocain yi defante ñu bii au but euh, def changement kon loolu suñu yokkute la ñun les sénégalais ndax ministre lii mu def c'est la première fois ñun ñu dugg ci salon yi vraiment ñu ngi koy sant di ko remercier tam defal nañ tam ci échange tam produit ndax tey Garga Mbossé ñun amoon na xamuñ xam nañu Garga Mbossé waye amna suñu niñ ci mënoon a waye tay ci qui Garga Mbossé amna suñu benn natango ci jeune fille kuñ ci won yo xamé né vraiment ak yokkute la. donc le salon voilà on n'a qu'une impression positive sur tout ça parce que ça va permettre plus euh, de visualisation plus de partenariat plus d'échanges entre le Sénégal, euh, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les transformatistes avaient besoin de ça, de quelque chose qui peut les, euh, qui peut les permettre de visualiser plus le produit, surtout d'aller au-delà de ce qu'ils font. Parce que être dans une région qui est un peu lointaine, comme à Kédougou, c'est ce genre euh, d'événements seulement qui peuvent nous permettre de visualiser ce que nous faisons réellement. Parce que Kédougou, c'est un peu loin. C'est pas tout le monde qui, peut partir jusqu'à Kédougou. Si on peut, un peu voir ce que les autres font pour un peu allier les deux avec ce que nous faisons. Tu vois, c'est ça aussi l'importance. Euh, regarder les autres, ce qu'ils font, pouvoir s'améliorer encore plus de ce que nous, euh, ce que nous faisons.